11 janvier 1983, depo won akweru gamon sayoye djamanon, ay kagdou djibon, djuge si sering sali ou mbake, djom si digente sering pecho ak mbole sen adunabi. Bisne tay, kep koubeg loumaner, ba an gaye weye nigel, boumousa la oulo ti se turwi, nan yon laye wowe sering pecho, di kagdou sering sali ou mbake. le 11 janvier 2024 ñeenti fukki acte ak benn si ren ñuy fàttaliku ak fatali wax ji. ni woon téeméeri waat yu ne dana def ko ci genn Aujourd'hui, nous ñuy dalal le professeur de universel Babacar Kassé universel Babacar Kassé consultant international waye itam professeur euh, de droit spécialité système politique contemporain et international à l'école nationale de commerce et de gestion du royaume du Maroc waaye itam di taalibe soxna Aïda Saliou Thioune mu Serigne Béthio euh, professeur Kassé ginnaaw générique bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak auditeurs yi bu ko defee ñi mën a jàll ci waxtaan wi ci barkeb soxna Aïda Saliou barkeb Serigne dire jeufati Serigne dire jeufati Serigne dire jeufati Serigne salew sang soxna ayda salew ku tedd ki fi yag lol sunu sak sunu ndam deug deug jëmi Serigne Béthio yalla no fi Serigne Béthio yagal jëmmam ji te xaafi yàlla ko yalla ko andak muntam yu teddi soxna Bator salew ak soxna Adja salew yalla nañu dimbali ci mom ci ta ko ni yeesal gi yeb ak kep ko xamni da nga di am di jamam te mu joriñ cheikh ma ngi lay nuyu bu baax di la bëggee té di la ndokkale ci liggéey bi di sant lool ci wo gi ma ci wo té muy sama ndimbal mu melni jublu ji lenn rek la moy doon sabab ci fiñal njariñ luy wat ci li tax yéene ji ak yitté ji ci sëriñ bi gëna kawé kala ma gi gëna kawé kawe gën gëna ñaw ngir lan ngir sukkandiku ak jappalé jëf ji jëf ji gën a aju gën a kawe yitte ji taalibe gi gën a fa sëriñ bi yit yokk ñu la ci ndokkale bu baax liggéey bi rafet na jërëjëf Seck maa ngi tudd Babacar Kassé di jëwriñ universel Babacar Kassé sëriñ euh, dans sa continuité di soxna de Saliou mu melni dit que l'identité, le nom est le premier élément d'identification de l'individu ou de la personne ñoo ci ñun dara gi ñu doon gannaaw borom euh, ci kër ñoo ngi dans un scénario social ci ay yu yu euh, li ci comme présentation c'est un dérivé je juriste là, du consultant international du professeur à l'école nationale de commerce et de gestion du royaume du Maroc bu Dakhla di introduction au droit système politique contemporain droit économique et des affaires droit droit des sociétés et des affaires Euh, teg ci it droit du commerce international waaye di ko jàngalee en anglais muy international trade law di sant sëriñ bi bu baax nag ci lii nga xam ni mooy ëpp jiite ci ñun mooy liggéeyal sëriñ tubaa nga xam jàmm yàlla daam waaye liggéeyal sëriñ tubaa di leneen xëy na loolu ci biir développement yi sax yàlla mën na nañoo dimbali nu indi ko waaye nag li ma gën a neex ci présentation bi mooy bu ma professeur laa ba ma ca gënal mooy bi ma soxna Aïda Saliou di wooyee waaw ndax euh, moom day moom la Serigne Salou def ci ay dogalam mo dima ma professeur euh professeur nak foko déggé ci biir bat bi da ngay dégg profession te boo profession fois mi ngi ci biir xeyna lolu linguistique moy mayé nga mën ko ràññee kon le professeur mooy ki nga xam ni lépp lu muy def lu rek da les principes qui sont liés à la foi day ne ci yow ba noppi nga koy transmettre et parmi les canaux de transmission du savoir il y a l'enseignement la formation le coaching le consulting le mentoring l'équipping waaye dem na ba yegg ci loolu noona ñu naan

invitation bii nga ñu defal euh, mu mel ni sujet bi définir nga ko waaye damay bàyyi rek nga dugalal ko sa bopp waaw bu ko defee liñ ci yàlla dimbalee rek ci taalibe yi ñu doon euh, ñu daal di ko ci wax te xam ni Serigne Béthio day dimbale nunu ba liy Serigne tubaa te buñ nee Serigne Touba mooy waruñu fenn yàlla lu mooy fi Serigne Touba euh, defal nañu ci accessibilité ci barkeb Serigne Saliou. ba tax na accessibilité boobu nag euh, la ñu ca xam ci biir danoo yóbbee yittewu dara nag lu may saasu ne talaba mooy ak taalibe néologisme bi nga xamante ni moom moo ko fi indi jamono ak taalibité euh, muy saxoo gi ngay saxoo saasu ne di sakku mbigum yàlla te doota jóg di ko def de façon pérenne euh, loolu yi nag day dëppoo rek ak waxi Serigne Saliou ji mu wax ne euh, la waaye di jaay lu lug taalibe na nga ko bàyyee te xam ne ëppale wala dara ndax lu lulug taalibe ak taalibe ko gën. kon xam naa boo ma bàyyee damay sartaak ngir professeur moom euh, mbir buy ñëw mu di ko jàngale léegi léeg dina ci am en phase ba wal ba flux ba euh, da koy mujj yóbbu mu sartaak kon maa ngi lay delloo kàddu gi. tase mu mel ni ay kàddu bu jibee li ci njëkk mooy ak teewlu ana naka lañu ñu war a teewloo kàddu yi Serigne Saliou yi di sama laaj bu njëkk. waaw joriñ Cheikh or teewlu kàddu sunu borom yi subhaanahu wa Abu Hamid al Ghazali nga xam ni moom la ñu bëgg a cité Serigne Touba mu tedd mi di ko woowee le maître. ndax nee na saa bu ma le maître wala le perspicace euh, je fais référence à lui euh, dafa am lum ci jàngale ci li ñuy wax la salmodie du Coran euh, dans sa perception dans l'attention que qu'on doit y apporter maanaam teewlu gi ñu ci war indi dans le fort intérieur muy teewlu biir mu indi ci fukki ponk fukki ponk yooyu mu ci indi nag gannaaw alxuraan la te nu xam ne alxuraan day day kàddul suñu borom muy lu yéeme yéeme yéeme kon ci alxuraan ponk yooyu mu ciy indi te warlul ko alxuraan te yàlla def mu dimbalee nu ko loolee tamit dañ ciy dégg rek ponk yi ñu war a am ci teewlu kàddu yi Serigne Saliou ndax moom moo waral jataay bi fukki ponk yooyu nag bi ci njëkk dañu wax yàlla boo koy teewlu di alxuraan danga war a xam njëkk ni cosaanu baat yi dafa tax mu le Coran dans sa quintessence est empreint d'une innovation, tant du point de vue de l'expression que du point de vue du sens alxuraan dafa doon lu yëkkatiku fa yàlla ndax day kàddu suñu borom nee na loolu moo tax nag ñaareel bi kawe gëm kawe nga war a xam ni la nga ciy jublu mooy sant yàlla dinaa def tuuti développement ndax kàddu suñu borom normalement mbindeef waru ko woon mën a dékku euh, suuf si waru ko woon a mën a dékku ndax yàlla sunu borom moom moo ko wax li ñu sëriñ Béthio di jàngal ne yàlla sunu borom dafa luumaate ak doomu aadama te sunu borom daa wax ni bu dogoon koono kiiraay yi nga xam ni def nañ ko ci xorof yi nga xam ni mooy xorof yi nga xam ni dafa mel ni da koo ëmbee kàddoom nee na kon du na fi mën a ne bay mën a teewlu kàddu yi ndax kàddu gi bu àndatu ko kiiraay lepp lu mu dir da koy pulvériser moy souf si kon lolu yërmande la waxna sax ni huruful qur'an yi fa ben koy denc bu don ben kep la aw ben harful qur'an neena na malaaka bu nu agrégé won seen doole seen katan seen man-man li yalla man lo ngir yëkëti ben araf dañ ci lot kon xam nga lolu kemtan la waye da tek ne Ben malaka rek moy azrafil mu jumul neena mom la yalla defal katan mu mun ko yëkkati te mun ko def nak lumay su si sunu borom ak nimbalam kon kaddu yi sunu borom li yonent bi salaa wasallam jangale yi da ci feñ neena ba ci yonent yalla musa sunu borom da ko rafi da ko rafernir da ko dëgëral aw da ko wayal teng dëgëral yaram bi ba nga xamni ba yalla di wax ak mom sax mo jur donte kàddu yi ba muy ñëw moom def na impact ci jëmmam waaye mënoon na koo teewlu ko na loolu kiiraay la sunu borom gu ma def yërmande gu mu def ci moom la du ko dëgëral lu lu mooyoon ko noonu du ko mën a teewlu nee na nag kon loolu li yàlla may ci mën a teewlu ay kàddoom loolu moo tax ci ñaareel bi kon booy teewlu kàddu sunu boroom danga ko war a sant ginnaaw ba nga xamee ni kàddu la yoo xam ni dafa yëkkati ko te kenn xamul dayam nee na nag bu ko defee gannaaw loolu ñetteel bi mooy nga di ko teewlu teewlu xol xol nag liñ ci mën a wax dafa bari ndax xol am na qalb am na fuaad am na kël-kël am na sadar am na aql am na qal waaye xëy na loolu duñ ci dugg waaye lii ibnu arab yi jàngale les huit facettes du cœur waaye buñ ne xol rek jàppal le fort intérieur ndax teewlu biir lay wax la salmo di intérieur du corps

boo wa fikrati nawwir waxal bi arshida yow yàlla na nga jubal sama kàddu ba bu sama kàllaama bu jub bu jubee euh, jal kalaami rashidan yàlla defal sama kàllaama et on entend par kàllaama communication kon Sëriñ Tuubaa dafa ne yow yàlla na nga jubal wa jal kalaami rashidan kon da gis ni kàddu bu jubee sunu borom a tax mu ne ma murshida moom yu mën di jubale di yete di gindee mune wa fikrati te sama méditation nawwir illumine la wa qalbi arshida ta sama xol di jub ba nga xamante diir dama koy mëna jam kon mën nga méditer mais méditation bi mën naa bañ a lu koy barkeelal da koy euh, wa donc l'illumination da ngay dégg sax dans les processus de recherche euh, dafa am lu les quatre I mooy euh, l'investigation l'incubation euh, l'illumination illustration xëy na loolu c'est un paradigme de recherche waaye li ma bëgg a wax rek mooy Sëriñ Tuubaa da koo indi ci bayit yu bari waaw bayit yu bari bisi fasaxati lisaani habli fasaxatan wan naw wéran a xaqli waaw ci yow yàlla nga xamante ni yow borom kàddu gu jub yow borom éloquence bisi fasaxati lisaani l'éloquence de la langue هب لي فصاحة donne-moi l'éloquence octroie-moi l'éloquence gratifie-moi de l'éloquence ونورا عقلي et illumine mon intellect te عقل googu tam da ngay gis ni sax ça renvoie au cœur xëy na dinañ ñëw un peu dans euh, les nombres au niveau du courant mais may wax rek ni nombre de fois yi nga xamante ni moom la àql feeñ ci alxuraan du nombre de 49 Euh, nombre de fois yooyu la le le le le nour feeñ ci biir alxuraan kon da ngay ni quand on parle d'intellectualité c'est pas un cumul de savoir li non l'intellectualité c'est de l'illumination parce que euh, aql 49 la 49 la donc un intellectuel c'est quelqu'un qui est illuminé par Dieu et pas quelqu'un qui a qui a engrangé du savoir li reste mu ne waaye fikar googu ngay fikar moo la war a yóbbu ci juróom bi euh, juróomeel gi nga xam ne le sens c'est des signes Vous euh, jëlee euh, étymologiquement aïe, ça signifie signe ce sont des signes qui renvoient à Dieu surat Maïlan, ce sont des limites donc ce sont des signes qui sont renfermés dans des limites ñu surat surat Madina voilà donc da les versets les versets en fait euh, ça contient des euh, les sourates plutôt ça contient des versets du Coran mais bu indi parce que dafa bok ci tax nga xam une forme de lecture euh, lecture extérieure dafa am solo la linguistique parce que de a beaucoup aussi dans la profondeur des sens aya ça signifie signe et sourate ça signifie les limites donc dafa ce sont des demeures où on garde des signes qui doivent renvoyer à Dieu les signes les symboles qui renvoient à des sens

wala mu yëg loolu ci sa bopp wala nga defe ne yow dara nga ci fekk doo ci dara wala mu dévoyé la ndax seytaane moom loolu mooy liggéeyam waaw waswasil xannaas euh, baatu waswas sax man bu koy dégg jàng ko dans la linguistique daf moo yóbbu ci lu yéeme ndax xam nga yàlla mun na ne was mais was-was mooy lu yëngu euh, te buñ ko indi woon fii xëy na lu reelu lay doon euh, ndax dans l'arab yi dañuy faral di wax naan Euh, soxna yi loolu ñuy takk da ngay dégg euh, léeg bu ñuy libido dans l'arabie profane libido yi yëngal di yëngal dafa was je vais pas très très au fond dal nga ciy gis mooy jax jaxi seytaane xam nga xam dafay mel ni lu lay perdre loo un peu le sens du contrôle ba nga def lu woyof def lu woyat yi euh, mooy ki nga xam ni waswaasil xannaas turu seytaane bi nga xam ni yàlla bu ñu tuddee turam rek moom day daw wala mu làqatu ci waaw lu tax nag xëy na sax mu jóge fa mooy li sëñ ci doon wax naan seytaane képp ku defee ne jëmm la joo xam ne da ngay jàkkaarloog moom euh, di mën koo moytu nee na boo deful ndànk sax yow seytaane dugg na ah ndax seytaane dafa am subtilité bi ne ci moom kon da ngay gis ni Imaamul Xasaali noonu la wax dafa ne fu da ngay def ndànk waaw ah, te saa su ne ngay wakkilu ci yàlla ndax seytaane dafa yori pexem te tout le temps il est aux aguets liir sax bu juddoo da ngay gis ne ni lu koy xëccoog ak ay waajuram looloo tax waaw nodd bu njëkk beeg waak yooyu ñuy def ñuy tudd doom xam nañu ko euh, da koy njëkkanteeg yow mu ne ci loolu da nga xam ni lépp lu yàlla di wax mooy ci kàddoom ci alxuraan mooy ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadisul qudsi yu wala ci xasaayid yi nga xamante ne day meññeetum alxuraan ci lu wér ci ñun te ñu xam ko di ko dudd l' esprit des xasaayid c' est l' esprit du daa may wet léegi nag euh, yàlla da ciy digle di ci tere kon nee na lépp lu ci ndigal lu ciy digle na nga xam na ko jubale sa bopp te bañ a defee ne yàlla diw rek a tax muy wax la ci téré yit na la concerné te nga xamni wax ji nang ko jubale sa bop te bu ko jubale kenn yow d'abord sëñ touba néna na ñi nga xamni dañoo bokku ci kuréelu way moxlis yi nii ñi nga xamanteni euh, dañuy giimal seen bakkan door ak jema giimal bakkanu keneen ci kanu yalla kon du caageenu da ngay far nit ñi amuñu solo wala per kenn amul yalla rek am dedet yalla dafa am ba pare sak ay support ay mbuus ba pare am lu ci def ku ne am bakkan néna na ikhlas ixlaas mi nga xamni c'est la pratique même du tawhid déggoo Sëriñ Serigne Touba ko wax ci nuru daal yi xëy na le verset le verbe am me revenir wahab li al risalat al wahidi wahab li al ixlaasa am na nu mu koy indee xëy na le verbe am ma va ma revenir waaye foofu mi ngi wax naan yow yàlla may ma tawhid waaye na nga ma may ixlaas et pourtant c'est lié mais ixlaas Serigne Touba nee na Euh, du ku nekk moo ko mën a jëfee nee na ndax yàlla ndimbalu yàlla moo lay boole ci kuréel way muxlisiina mooy way sellal mën nga xam kenn sunu borom gi mais te ñàkk koo sellal donc di nga koy sellalee loolu ndimbalu yàlla la nee na nag mooy euh, muxlisiin mooy ki nga xamante ni day xam ne yàlla fi nekk waaye yàlla dafay nekk ci xereñam sàkk ay mi def nekk ndox ñoom nee na kon dangay ngay jàpp ne yàlla dafa mel ni du toog ñu ngi fi wër ko léegi nag moom euh, da ngay giimal ñëpp ci kanamu yàlla neen bu ko defee ñëpp yàlla la ñuy gis waaye du tey dañuy gisaale ñi nga xam ne moom la ñu sàkk te moom it moom rek a fa ne ndax dara amul laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nee na nag waaye buy giimal sa bakken moom nga war a njëkk a giimal xam nga kon loolu dafay ñëw ci di imam xasali wax fii nee na li ngay jàng di ko teewlu ci kàddu gu yàlla bul ne yàlla diw lay waxal ne na nga jàpp ni yow lay njëkk a waxal donte yàlla waxam saa bu ko yëkkatee il s'adresse à tous les ordres de réalité bi nee na daf la war a jural yëg-yëgu biir

waaw kon nee na alxuraan noonu la war a def da nga war a boole raison et résonance résonance mooy dafa war a am reflet ci yow nee na nag loolu moo lay jural ci neuvième bi une ascension ak yëkkatiku fa yàlla. kon booy jàng alxuraan wala ngay teewlu kàddu suñu borom ci weneen melo déglu kàddu sëriñ bi ci ñun day wax yàlla sëriñ tuba di teewlu xaddisul xudsi yu xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasaay yi. Serigne Saliou nee na xaside yi ñooy sunu jokkuwaay ci Serigne Touba Serigne Abdou Lahad fekk mu wax ne xaside yi mooy sunu kerkeraan ci Serigne Touba noonu ab yéegukaay la boo xoolee sax dans le processus de la talibité ci wàllu jëf Serigne Touba wax na wahab lil xulóoma wal ahmala wa sidqa wal qibala yow yàlla na nga ma may xam-xam yi waaye doyul na nga ma may xam-xam yi ma di leen jëfee ahmala waaye doyul والصدق أنا ما يأدق والوفاء أمثل كل والإقبال أمثل ما نعم لي ما تلقي في مويا الله نقول ما دنيز لول أبي وحب جل هلوم أحمالا والصدق والوفاء إقبالا وعن نسر في البدعة دم والدلالة وحب جل الإخلاص والكمالة وعن نسر في البدعة دم والدلالة نعم وينيل بدعة ما نعم فين الله خم نبكو تي وخلو خم نبدق صوص ودلالة أكبرير ce qui veut dire que ci yëg ba lu ci ne mën naa ñëw mën ngaa sos mën ngaa réer yaa ci yàlla musal wahab lil ikhlasa nag ma maye sellal ga wal kamala ak mat ga la perfection dafa dafa bokk ci mat gi nag dixième nee na da ngay dem nag ba xam ni yegg nga ci station yoo xam ni ci teewlu kàddu sunu borom mu yóbbu la foo xam ni da ngay nekk en extase wala nga nekk en tristesse da daan dal sahabatu rasul yi taddi sayidina omar daan jàng alquran koy jural muy jooy waaw di tuur ay xiiwal ñoom ñëpp ku ma lay waaye wala mu jural la loolu lépp daf la war a yóbbu ci nga xam ni yow support la la yàlla def rek te ca yërmandeem ja dañ fàttaliku bu dogoon ko noon kiiraayu araf yi bu dogoon ko noon kiiraay gi sëriñ bi def ci jëmmam bu dogoon ko noon kiiraay gi mu def ci bayit araf bayit yi ah kon day mel ni loolu du mën a accès ci ñun loolu kon boo ko fàttalikoo da gis ni kon yow doo ci dara ndimbalu yàlla la rek nee na looloo tax da ngaa war a wutale sa jëmm ji ak mag sunu borom bi kon li ñu war a wax ci teewlu kàddu yi Serigne Saliou yi nga xam ne moo jëm ci euh, li mu ne képp ku bëgg lu ma neex te wéyee sama ndigal bul sàllawloo ci turu Serigne Béthio wi nañu koy woowee Serigne Béthio xëy na sax yow yaa ma koy gën a mën a di parce que effectivement euh, du point de vue de l'expression ak euh, xereñ gi la yàlla defal ci walu archivage donc euh, waxi sëriñ bi danga koy mën indi numu ko waxee. ana gan jangat nga am professeur ci cadre yi nga xamni ni sëriñ mi ngi ko jibaloon si atum 1983 bis ni tey képp ku bëgg lu ma neex baa ngay wéyee ndigal nañu lay woowee sëriñ Béthio. wa jëwriñ Cheikh l'archiviste le maître journalistique de Soxna Aïda Saliou.

mi wax ci diggante ay xasaayidam muy nuuru daari ni fi xidmati alhaami anil harini jaalibatul maraqib wala mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati ala muqimin sunna ak yeneen xasaayid ay kàddu yoo xam ne yu yéeme yéeme yéeme la ci Serigne Saliou ngir wane moom ku tedd ki ñàkk moromam دجل مني ولتجعل دنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا متكي مع سلام ليصحح الأمل الصالح الذي يكمل الأمل وهب لي العلم الصحي والأمل الصالح الذي يكمل الأمل متكاتي قط جواره إلى الأحمال الصالحات مكملا آمالي وعين جنب أختنق أوبناك صل على ساله وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح هذا فدوي إميشن بيتي تأب إميشن خاينا إشل بيسير تبع وخي نون موكو تغالي سخت فو يمي واي بما يمجي وهم واي لين قادة الأجور والمصالح بتأيو الجسو إني سالي سرين سالي هو جتاي جمدان جتاي سيجنة جو بمي جتاي سيجنة جو لحشو كونسي باو باسي ne ko Serigne Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa beuy sa baytu bop ba ngoog bon lolou euh xeyna euh, c'est suffisamment de provisions ci bayit yooyu sans yi mu rempo yi mu renfermé ngir def objet ay émission ay émission ay émission ndax bayit bi ci ne àddina la ak lu weesu àddina mais damay ñew ci déclaration bi képp ku bëggati luma neex mbaa ngay wéyee sama ndigal wala te ngay wéyee sama ndigal eh, bul sàllaw la tur sëriñ Béthio bi na nga koy woowee sëriñ wax ji bi ko déggee yàgg na euh, tu as eu à l'énoncer c'était le 11 janvier 1983 euh, euh, un mardi di gàmmu ñu am nañ ko déggee woon waaye xam nga dégg-dégg day màgg dama dem ba ci ci sunum njàng nga xam euh, on a atteint l'expertise dans le domaine des sciences juridiques muy le droit xam nañu ni Serigne Béthio ci njàngale gi nga xam ne moom la ñu sax moom la bu doon wàllu nit la maanaam dafa sonn ci ñun ngir mu investir ci ñun xamal nañu ni xam-xam yi ñuy jàng ci université yi te ñu di ko jàngale seeni cosaan moo yàlla te it seeni jublu moo doon daa war a yóbbe ca yàlla maa ngi fàttaliku bés daf mu mus wax ne ma Babacar ma ne ko waaw mu ne ma ndax xam nga ne may muccukaay bi may làquwaay bi may rawukaay bi daal di yem foofu ma ne ko cuun yaay muccukaay bi yaay làquwaay bi yaay yaay rawukaay bi te yaay yeggukaay bi mu ne ma yàlla nga xam loolu ba noppi di seetaan nit yi ci mbedd mi

utiliser ay matières yo xamné da ci jaarale ngay jégué ñu naan informatique la médecine muy lu am utilité ci nit lo xamné day jëriñ doom adam ndax nit bu tawetee dafa wara a dem faju ji euh, imagine toi informatique ba ñoo am tay kon adina dafa melni kon am na fu mu doon taxaw fo xamné tay ji jii fi mu yegg tay du fi egg les finances d'entreprise la comptabilité d'entreprise euh, les audits euh, qualité norme en entreprise euh, l'astronomie l'ingénierie dans tous ces états Lolé lepp da nga gis ni ay yoon la waaw yo xam ni eh, yàlla dafa mel ni lu ko sak la ngir eh, nit ki mën ci yewu ci boromam waaye nag ni mu waxé ni dañ ko dévoyé eh, les les terminologies ont été galvaudées looloo tax ni ngi ko wara a deug ci yalla duñ ko ni jëriñoo ndax li ci ëpp sax dañ koy jox tout simplement une visée un horizon terrestre moy mbirum àddina bien vrai que day am njëriñ waye bu ak talibé jito ci yow yow bo jangé da ngay xamni loolu lepp ay la ay xam-xam bi la defal la bo xam-xam la ko la ko di euh, gannaaw bi nga ndax xam-xam tax ñu wax euh, ndax Elohim nga dégg ñu naan important Elohim baatu li tekki la première clarté de lumière qui est issue de la jonction

Eh, dafay mel ni xam-xam day tumuraanke dégg jàng dégg sax ci njàngaleem Sëriñ Saaliw mu ne café eh, boo koy jëfandikoo nee na dafa mel ni ba ndoxu café gi mooy xam-xam waaye nee na ndox mi eh, suma juumul moom mooy teggin yi et suukar si moom mooy moom mooy njariñ lii cest à li ngay jariñoo ci ci kafe

waaw ah, ndax ku sol mbaxana dafa lay dañ lay seetlu dañuy gis mbaxana ma ca kaw ndax a kaw lay féete mu ne waaye itam da nga koy tegal sutaan mooy kàllaa nga ne kàllaa gi mooy autorité bi fu mu dem ñu di ko respecté ndax xam-xam deesu ko waxee fu ñu koy xeebe waaye da solo dal dàll yi nag mooy nga doxee sa xam ndax xam-xam la ko defalee te doxee woo ko bu ëllëgee Sëñ Tuubaa nee na day bisu penc ci day doon sab noon wala ci kanamu yàlla day doon sab noon naan di la xeex naan yàlla yaa ngi nii da ma ko dénk waaye jëfewuma donc xam-xam leneen la ci bi ma jàng muy droit droit lu jub te ku ne xam na ne lislaam ni ci wut mooy ak njub siraatal mustaqim maanaam taal yi tegu ngay tegu ci siraatal mustaqim mooy tax ngay xam nixma nixma nixma mooy xéwal yi ay na loolu dinañ ci ñëw ma am ci déggu déggu juriste ndax ci lu ñu woowee législation

li ñuy jublu ci attendu de principe mooy teewlu ki nga xam ne moom mooy destinataire loi bi dóor bi nag mooy waaw mooy mooy impact bi mooy bu mu sàllawloo te su tur wi na lay woowee sëriñ da coow dafa mel ni nga dem marché bëgg gaa yi déglu la te mu am bruit euh, nga jël sa ndënd wala sa xiin nga xam ne da am dàng dàng kokku kokku

murit dafay gaaw ba mel ni waña gannaaw loo wax mu naa waaw waaw dëkkee tëf tëf moteuru murit du fay waaye bis régime bi day baissé parce que xëy na dangay dugg sa biir kër kon bu fekkoon jëf la oto bi dañ koy misaale ci jëf yi moteur bi du fay waaye dangay ngay waaw dafa am nooy def oto bi dégg nga daal di koy wàcc euh, te doo ko fay dugg ci biir naan kafe du gàtt nee na kokk kokk gi nee na kon booy tëgg di teug avec un rythme d'enfer néna ki dukkat kam day dukkat dukkat yo xamni kéman lay doon waaye néna day soxla moment bo xamni yow da ngay dallu ndax da ngay son néna na ngir baña a teug ba da ngay teug ci wéti nan naan kok néna na bu ko defee kii fecc day dalluwaale walé na day tax moo kok ké bu récupérer wat énergie néna na dangi dangi wat da ngay fitti waaye lolu xeyna brèche la bu mu euh ngir am légui nak gis nga bi mu xaccé avec l'attente de principe bis ne tay képp ku bëgg ku bëgg lu ma neex day wéyee sama ndigal mooy ndi après l'attente de principe déclaration finale ba mu sàllawloo ci sa tur wi na lay woowee Serigne Béthio jëwriñ universel polyvalent Mam Oumar que je salue avec beaucoup d'hommage ngir intervention bu pertinente bi mu def jëwriñ Mam Oumar euh, moom mi Serigne defal taalibe gu sell gi di xaritu ñëpp di sama xaritu bopp ñu koy santaat ci intervention bi mu def tey ñaan sunu borom gën ko ko mën loo tey ndokkeel ca ntàkkoon yépp ci turu soxna Aïda Saliou ak képp kuy déglu émission bi dafa attaqué sujet bi ci tiofel waye bala may ñëw ci tiofel dañuy tambalé d'abord ci premier élément euh attendu de principe bi Serigne une dafa ne bis ni donc bis bobu di goudi gamu di bisu mardi talata. bis bobu di le 11 janvier 1983 ça peut ne pas engager tout le monde le hasard n'existe pas Serigne une jangal na croire au hasard c'est ignorer l'origine des causes 11 Ibn Arabi dafa wax ni le nombre de la transcendance ni ni 6 le premier chiffre de la perfection Il y a développement pour nous comprendre 15 sens bi le premier nombre de la perfection D'abord, le 15 parce que c'est 5 plus 1. te chiffre nombre chiffre sens c'est des sens mathématiques lire qui livre un les principes du calcul infinitésimal de comprendre le baril donc euh, dafa am xam-xam bu chiffres mais xam nañ ni le chiffre de le nombre de la transcendance parce que le chiffre étant le vêtement du nombre euh, millions milliards ak milliards janvier ci calendrier tubab ndax euh, mënuñu ko ñak jël aussi euh mom le calendrier solaire parce que même bo xolé ci bir alcorane euh yalla bu mu wax ci wa ashabul kafi dafa né nek nañ ci bir euh, grotte bi caverne bi euh 300 euh, ans tek ci 9 ans da ngay gis bu fekkee calendrier musulman la day doon 300 ans waaye bu fekkee tamit calendrier solaire la bu ñuy utiliser euh, da ngay gis ni ou bien nga xam ne la chrétiens yi di mbokk chrétiens di utiliser suivant la l'apparition de Jésus-Christ et salam. alayhi salaam euh, dafay tege 9 ans donc 300 ou 309 ans ça veut dire que mënuñu ko que jël en compte parce que doon tamit feeñalu suñu borom la. Quand janvier, c'est le, le, premier mois de, de l'année. Waye man dama ci gis waaxidiya mooy dafa am lu ma sëñ Béthio waxoon Babacar le chien ne peut connaître sa vraie réalité que s'il est en solitude avec son maître Dans né mu xamal le chien c'est l'âme donc euh, Baken mënta xam la mu doon dëgg ma ko wax ci wala bakken xaj mënta xam la mu doon dëgg li fekk wéetul ak boromam loolu tamit mën naa doon wax joo xamante ni yaatu na lool waaye liñ ci jublu mooy la solitude l'état de solitude mooy waaxidiya te loolu mooy mooy la délivrance délivrance nag c'est le but final bu ñuy wax loolu mooy la délivrance ultime loolu yi Serigne Saliou ne mbaa yàlla yi dañoo déyale waaye bi ci féete kaw moom la ñuy woowe moom la indo yi di woowee woowe délivrance moksha mooy mbaa la bi féete kaw daan ne looloo tax sax Sëriñ Tuubaa doon woote yónnul murit mu naan minallaahi ilallaahi na murdallah yóbbu gi mu la yóbbu ci yàlla mooy delloo la ci sa fitra ci la nga doon dëgg waaw te sëñ Béthio ne ma topp ca biir da ngay dem ba ci réalisation ba yàlla piir ngay doon ndax mooy sa origine mooy sa fitra l'état de de solitude avec le maître d'où le fait de l'état d'être solitaire ou seul Moi, da ngay sunu borom day yow ba nga xam yow c'est à l'image du chien maître un chien enragé un chien en errance dañ koy duggal ci biir kër gi di ko sang di ko jox muy lekk di ko yóbbu ci vétérinaire da ngay gis day wuteeg xaj yi nekk ci biti tam mel ni am nañu borom muy seen borom waaye nag yàlla boolewul leen nag yarkat bu leen yar ba nga xam ni seen espérance de vie day gën a gudd seenu dund dafay gën a neex xaj yoo xam ni dañuy dem ba mel noonu weesu xaj te li koy yóbbu mooy maître bi ñu am te loolu ci ñun mooy la guide spirituel 19 bon mooy mooy basmala ci ñun 83 ni 1983 83 mooy nombre de fois yi nga xam ni moom la mahabba feeñ ci alxuraan alxuraan dafa yéeme te feeñul ci benn aaya waaye ci ay aaya yu bëri la feeñ baat yi ñu tëggee mahabba te diiru 23 ans yi nga xamante ni ci la alxuraan wàcc ci yonent bi moom ko tedd ki sallallahu alayhi wa sallam dafa warewaat kéemtaan alxuraan. donc à travers l'alignement des versets des versets l'agencement des versets fait na 83 fois mon mahabba ni nga xamante ni la benen baat feeñee mouy ta. Mouy ak tamit c'est apparu 83 fois Lorsque nag ma am déduction boo xamante ni dañ ko ci def mooy taa mooy toppee kon mahabba sopp wala soppe 83 fois la ñëw ci alxuraan taa 83 fois la ñëw ci alxuraan kon ndekete ku sopp 83 da ngay topp 83 te ñëwul ci benn saar wala benn aaya waaye dafa mel ni suñ borom da koo dispatché alxuraan te ci diirug 23 ans loolu kéemtaan alxuraan la kon ku soppul 83 doo topp 83 kon ku toppul dafa mel ni soppoo dëgg-dëgg alxuraanul karim day lu yéeme yéeme yéeme yéeme yéeme xoolal baatu imaan 77 fois la ñëw ci alxuraan juróom-ñaar fukk yoon ak juróom di ak weddi di safaanam 77 fois la 17 fois la ñëw plutôt euh, damaa jum imaan di ngëm. 17 fois la ñëw ci alcorane moy fuk ak juroom ñaar kufru bi ak weddi 17 fois la ñëw ci alcorane moy fuk ak juroom ñaar loolu du hasard ci 23 ans ci alcorane gi yëpp te nekul ci ben suura rek shukr di ak cant gu jëfé jëfe cantuk sëñ Béthio gi 75 fois la ñëw ci alcorane baat yi ñu dëggee ko shukr waaye xusiiba di njaaxum wala musiba walla tojange soixante quinze la ñëw comme ni sukkur ñëwee muy juróom ñaar fukk juróom dara du asaar moo tax ku ne du wax yàlla euh, man damaa xamul sax ci lii rek euh, wala du kéemtaan ndax arab yi ndal bind ay xasida lu ñuy bind lu ñuy wax ay xalaayiq yo xam dañ ko daan bind di ko wikk ci kaabati kaaba gi nga xam bobu yentu bi saa sallam feñagul won waye yàlla dafa def yi arab yi ci seen lak nga xam jamono ay xasaayit lañ doon wax ak ay beuy léegi ñu dem ba ci biir ay surat dik ak ay aya sank sax neena surat Madina bi may wax boo dégg manan surat Madina moy les limites de la ville de Médine ba ngir leral waaye Serigne Touba moo jëlaat la arab ya doon wax ci xasiida jublu ak bayit ya ab yaat ya di ci génne meññitum alxuraan loolu bu sëñ Touba ne moom moom alxuraan kenn war ko weddi mu doon wax ci kimtaan boo jëlee baatu assaalihaat téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari yoon la ñëw ci alxuraan mooy jëf ju baax as-saalihaat 167 fois muy jëf ju ñaaw jëf ju yiwul même lim la ñëw ci alxuraan muy téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar as-saalihaat jàkkaarloog sayyi'aat di jàmmarloog moom. waye lañ yam ci batu salihat googu batu salihat gogi nga xamne moy jëf ju baax jëf ju yu serigne Saliou nak daf ko yobbu fi ba ci ndigal waaw dafa ne bis nit tay kep ku bëgg luma neex luma neex gi mom dañ koy dañ ci top rek universal mam Omar ndax ñi ngi ñew ci ilasi ndax illa si bien ramené tay wé sama ndigal ndigal li lañ jital nga xam ni fii dafa tere bu ñu sàllawloo ci turam bi nanu koy woowee sëriñ beccu ndax sëriñ beccu day turam bi daa tedd lool sëriñ beccu la ñu xam wax na tamit ne moom ku tedd ki maajoor la tudd te day sëriñ beccu am na lu ma wan ci soxna Aïda Saliou feeñ di chef de major ñu bind ci galon bi majoor xëy na loolu tamit dinañ ci waxtaan ci yeneen fànn xëy na desu la mën a wax lépp sax waaye ba mu mooy wax ne ma soxna Aïda Saliou est la compagnonne de Serigne Béthio l'absolu billahi wallahi taalaahi Serigne Béthio moom moo ma ko wax daal di ma ciy tegal li ma ci wax waaye loolu damay baña a euh, jaxase muy suppu kànja euh, xëy na sax suppu kànja neex na waaw ah, waaye damay bañ sàlleen yi am nuñ mu waxee waaye damay bañ na def gam wala mo hors sujet waaye seigne Béthio mako wax de barki seigne salim soxna Aïda Saliou et la compagnonne de Serigne Béthio l'absolu ñu wan mako mu doon chef d'état-major mom seigne Béthio waaye ci galon bi fi ñu waroon a major wala état-major ñu dina fa major kon major major major majesté ku jëmmam ji dëgg di nga xam ni sëriñ Béthio amul dendandoo il n'a pas de collatéral loolu it ko wax moo ko xamal nee na ma sëriñ Béthio amul dendandoo mënees na koo wax sëriñ Béthio lettre suprême qui n'a pas de collatéral boo jëlee karo dafa am ay côté côté bu ne moo tax ñu naan latéral te karo boo ko tegee da ngay teg beneen karo tegaat beneen karo mooy tax mu mën a doon un parquet mu mën a doon ab deru karo kon karo faw day dend ak karo waaye moom amul collatéral moom kenn dendul ak moom boo tuddee bi yonent da nga naan alayhi salaam boo tuddee yonent bi muhammad da nga naan sallallahu taala alayhi wa sallam wala nga wax yeneen allahuma salli wa sallim wa barik ala man asrayta bihi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa sayyidina wa lana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa karamaka wa bastaka wa وجئنا أك ونصرك وتأيدك ويمسك وكونك لما فاق كل زين وكوني عبدك يا كريم يا ولد وكوني خديم خيره بارك عليه الصلاة والسلام في كل شيء ما تخلوا قال يعني تغلب نذكرك بها أبدا بلا شيء يسوني أو يضرني الله يا عزيز كل وهب للعزة والحكمة بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب ci Serigne Touba moo xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku bëgg xam wét gi mu wét ci xam gi mu xam yonent doon gi mu ko doon آه، للمصطفى نويت ما يجد زنود الغرا وين احمد نسرين صباح يعني، آه، وخينا وين نيساليو كون لن كيبل دو اي جو موم سرين بيتو موكو جانغالي تي كان تي سخنام يي تدي خينا لو نو نو مريفين با سما خيل دمي تي يابتور دا فا ملني لا ما سا دغ مود مكو نتالي موم بنتو سونا جا ساليو ناميرام كون دوكالي موك سونو نداي تدي يو باخ ييغا خامني

nit dinañ fi wala la fi wooyee sëriñ waaye booy sëriñ sëriñ lu boo def sëriñ dëgg di nga xam ne sëriñ Tuubaa rekk ay sëriñ lu matul sëriñ loolu dinañ ci dikkaat sax ci cëriñu sëriñ Béthio mu ne waaye cun buñ la tuddee yow mu ne da ngeen di wax ne amul leen ndoo waaw loolu nag eh, ci feeñuk sëriñ Tuubaa la sëriñ Tuubaa tam moo weneen melo sëriñ Béthio amul leen ndoo amul nawle il n'a pas de collatéral et battu collatéral boo koy xeel dans la linguistique dafa melni ni da ngay dégg ñu naan les successeurs collatéraux dëgg la Serigne Touba mën mënta ñàkk ami mbokk ci sahir Serigne Béthio mënta am ñàkk ami mbokk ci saayir euh, mu def ñu ñu tedd ngir sox koo gi muy sox ko ci ñoom waaye la l'essence de Serigne Béthio elle est indéterminée ci ku mu dimbale nga am loo xam ci moom euh, li may wax dama ko xam dam ndax dama ko xam loo barki Serigne Saliou man dafa ma mës ne ma yow day babakar ma ne ko waaw mu ne ma xam ma kan waaye da ngaa war a dem foo dem ne may lépp xam nga lu tax ma ne ko jërëjëf Thioune mu ne ma fi ma jaar ak yow la yow yow da ngaa war foo dem ne may lépp ndax fi ma jaar ak yow la Serigne Béthio amul lenn ndoo amul nawle en droit le nom est le premier élément d'identification de l'individu mais le titre indique la sacralité de l'individu Euh, soo ñëwee tout tànk sax boo ko amee dafa am noo koy woowee ndax boo ñëwee woowee ko nu mu la neexee mbaa nga gëdd ko dafa am luy suscité ci moom am résonance bu muy am ci moom mais boo ko woowee bari ne ko champion guerrier da ngay gis ni day sawar buy dikk ba te boo koy wutal tur danga nga koy wutal tur woo xamante ni dañ ko ciy naw boo ñëwee dans le monde professionnel mais c'est supérieur hiérarchique doo ko woowee eh? wala gain wala sama rak wala turuñ koy wowe ci mbedd ma wala dans le lounge wala turuñ koy wowe turu diminutif bi ñu koy wowe seen kër boo ko defee mën nga caa jëlee loo xam ne ko parce que c'est ton supérieur hiérarchie hiérarchie beaucoup de déggee c'est composé de deux éléments linguistiquement muy hieros pouvoir transcendant et sacré onze moo doon moy lo xamni titre le bu jéggi dayo dafa dayo ñi nga mais dans le monde professionnel ça veut pas dire que c'est la grande fi mais tu walu l'obligé, comme tëralin mënta ñak ne dafa pas au sommet de la hiérarchie peut-être que je suis à la tête du management suis planifier Je suis l'animateur des équipes Je suis supervisé ki nga euh, superviser les opérationnels qui gère la production et les équipes Mon moo les contrôleurs de gestion Nous avons coordonné l'activité au sein de l'entreprise ou de de l'établissement public wala dans le gouvernement Nous nekk peut-être à la base on parle de N mon niveau N0 N plus 1 N plus 2 N plus 3 N 5 jusqu'à chief executive officer par exemple ou le président de la république Donc, on est pouvoir transcendant parce que femme a un pouvoir transcendant Il y a un pouvoir autorité la l'autorité, L'autorité, elle elle va de soi elle n'est donnée par n'importe qui c'est pour qu'on parle d'autorité spirituelle et pas de pouvoir spirituel. autorité spirituelle qui une individualité dans son unité et unicité mais pouvoir avec S temporelle. Donc les pouvoirs temporels émanent de l'autorité spirituelle. nga dis ni nag y fi am pouvoir dans le management ak foo mënta discuter à l'échelle management ou du leadership il y a un pouvoir bu transcendant mais arché est sacré boo dégg ñu un sacré mooy dafa am noo koy laalee dafa am noo il woowee dafa am xorma boo jox loolu nag tax ngay dégg ñaan xorum jumaay Touba xorum jumaay Médine orma moo tax sa waajur bu góor gu jigéen dafa am noo leen di woowee bien vrai que sax familiarité day am mais da nga ciy def respect parce que arke gi la mooy sacré Serigne Béthio mi nga xam ne nag Serigne Saliou dem Serigne Béthio li ma def ci yow ku dul yàlla sa borom xamu ko yow nga bëgg a wooyee Serigne Béthio nu mu la neexee. c'est dangereux dégg nañ sax mag moo xamante ni mu ngi yaroo diggante Serigne Souhaïbou mbakke mu tedd mi ak Serigne Saliou Mbacké ay Serigne Touba mu wax ci lu wér ne képp koo xamante ni da ngay waxal Serigne Touba lu mu waxul mbaa ngay sàllalu turam bi mbaa ngay sàllalu turu soxna jaara mu tedd mi ñu Serigne Saliou di wax naan sunu maama. nee na loolu mën naa jural nit ki en substance xëy na mën ma ko li mu ko waxee waaye en substance dafa ne mën na koo jural euh, deltu ginnaaw gàtt fan dee sa te say maas la booy dund kon sa law lu turu Serigne Touba lu dangereux la kon Serigne Sall bu demee wax ko Serigne Béthio kon Serigne Sall am na lu muy junju kon dama gis sax ni li mu ne bu ñu sàllawloo ci sa tur wi nañ ko Serigne Béthio Serigne Saliou bëgguloon yem ci Serigne mais dafa am lu mu bëgg a wane ndax Serigne Touba képp mooy Serigne du matul Serigne